ñi leen nuyu di leen jaajëfal si euh, teewlu bi seen euh, émission face to face amaat euh, mbégte dellusiwaat ak yéen ñu indiwaat leen nag tey wax naa ki nga xam ne nag ak ah, yow na ma moytu nag ndax damaa bëri ay xeetu avocat yi papay avocat yi magu avocat mais kii nag dafa nekk actionnaire ci émission bi di actionnaire avocat te bokkul na ci avocat avocat avocat yon yi ak avocat mbajo mbajo yii waaw ku ma laal mu mu digaale ko ak yow moom mooy euh, bokk na ci actionnaire majoritaire émission bi euh, tombek nag fi réew mu toll ñu soxla euh, bu baax taataan xalaatam juridiquement d'abord ak nag politiquement ensuite ndax avocat la waaye tamit homme politique la di kilifa gu mag kàngam gu mag ci bii wàll ak ba ca des muy baro beeg politique bi Maître Ousmane Seye laa am mbégte dalal ci face to face bi kon euh, ni ma ko waxee muy avocat euh, euh, bu bu ràññeeku jiite parti politique bi di front républicain bokk ci conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar nekk tamit ki nga xam ne mooy coordonné mooy coordonnateur national bu CPE du coalition pour l'émergence nekk tamit vice-président ci Haut Conseil des collectivités territoriales mais maître yi yëpp bëri na ah ma mbaa jàmm lii bëri na de. surtout bon. ah laaf cat bëri law la cat. law la cat waaw. mais Ousmane Seye ñu jox sa wàccuwaay sama grand bàyyi la nga nuyoog àddina. mi lay seetaan xam la loo ràññee la namm la nag ndax day gën nga man maa la gën a namm. Mm-hmm. xam nga comme ni nga ko waxee ñun yàgg yàgg nañ trop petit bi ngay def stage. ba sama kanam la. ñëw dina ñëw tribunal nekk wal fajiri. ba léegi. ba léegi wallaay ci man. ma la gërëm di la sant aussi. parce que jigéen bu am fulla ci liggéeyam la bu am fayda ci ci liggéeyam Euh, ci sa émission yi ci mm. émission yi nga xam ne moom lay gën a seetaan ci la bokk. ku ma xam rek xam na maak ak yow. waaw loolu am na. voilà namoon naa sa émission bi nag parce que xaw naa fi gëj tuuti. di la nuyu di di di nuyu say téléspectateurs yi. Mm. fii ci réew mi. ak ci bitim réew. Euh, fàttewuma aussi borom kër gi. dama mm, suma xarit la waaw di loolu la yàlla dogal yow yaa xaritu ñëpp. <laughs> <laughs> alors Ousmane Seye ñu door émission bi ak li yëngal àddina muy Moustapha Cissé Lo euh, mi nga xam ne danoo xëy suba euh, ay ay ay audio euh, lëmbee àddina waaw audio yooyu nag di ay audio dëgg-dëgg yoo xam ne daal yu doy waar ci anam ya mu tëddee ak kàllaama yi ñu fi yëkkati yoo xam ne daal bëri na ñamu metti te ba tey mi ngi wéy di metti di metti àddina ma bëggoon nga wax ma ca njalbeen yow ban jàngat nga am ci euh, boobule mbir. waaw Aïssatou xam nga loolu euh, du ma ci mun a sori. Mm. Euh, parce que foog naa ne li ngay wax ñëpp yëg nañ ko. Mm. fii nag réewu démocratie la. Mm-hmm. nit lu ko neex mu wax. Mm-hmm. mooy la liberté d'opinion. am na ci aussi ay instruments yoo xam ne. mën mm-hmm. ko ko fa jaarale. ay yu baax yu yu bees. ay WhatsApp ak yi ay YouTube ak yu kenn xamut. mais li nga xam ne moo métti nañu ci wax ji mooy saaga yi. Euh, ca man xam nga Yaxa Mbaye bi ma saisiré. Mm. daf ma ne moom ci boppam homme politique la. Mm. yàgg nañ ko saaga. yàgg mm. nañ ko wax lu ko metti mais li ko metti ci audio yooyu. mooy ay waajuram yi nga xam ne dañ leen dëkkal fu ñu dëkkul dañ leen a saaga. Mm-hmm. alors looloo tax moom mu saisir yoon. ah déposé na plainte boobu déposé na plainte am saisir na yoon. Mm-hmm. parce que yoon aussi dafa prévoir yooyu. maanaam prévoir na saaga injure mais prévoir na aussi saaga yoo xam ne dafa jàll ci yenn xarala yi maanaam jàll ci ay whatsapp euh, te lool aussi daf ci laaxaale sax ñoo xam ne ñoo ko dimbale bañ tasaare wax ji ba nga xam ne Sénégal yëpp mun na ci jot àddina bi yëpp mun na jot yooyu yëpp yoon prévoir man man ci loolu laa parce que euh, xam nga euh, yëf bi mun nañu wax ne dafa mel ne ñett nit ñoo ko seq mooy yaa xam mbay sa client di euh, Farba Ngom di it Cissé ko seqee mooy euh, Cissé Lo moo yëkkati ay euh, kàddu si jëmale ko yu ñaaw jëmale ko si ñaar ñële léegi nag ñett ñoo ñooñu ko seq mu mel ne kon am na lu ci lu mel lu ci lëndëm ndax Cissé Lo mu nit mën a jàpp ne amul intérêt moom génneel audio yooyu ndaxte Euh, moom dafa woo ay nit ñuy xuloo mën nañ jàpp ne xuloo la mu ñu saaga jib mm-hmm. léegi ci lii nag kon bu fekkente ne euh, woo nañu Cissé Lo yoon fii léegi nag euh, expert juriste bi laay waxal <laughs> bu yoon woowee Cissé kon war nañu tam mu def enquête ci kan moo génneel yëf yi waaw xam nga ñun ay avocat mm-hmm. xam nañu yoon wax ji dégg nañ ko xam nañ fi mu jóge mm-hmm. li ko tasaare tuuti xam nañ ko. kan ma ko du ma ko wax mais. ñun xam nañ ki ko tasaare. xam nañ aussi euh, organe de presse bi nga xam ne moo njëkk a tasaare ci te loolu yëpp dañ ci am ay find yu wóor. donc bi wax ji jibee. Ah. la na ci wax ji. ki ko ki ko tasaare. ak même nit ñi nekkoon ci suuf. di mm. pousse. yooyu yëpp ñun def nañ suñ enquête ba xam ko. jébbal nañ ko yoon léegi nag yoon moo war a def liggéey léegi man xam naa bëggoo ci sori waaye mais mais quand même mën naa foog ma posé euh, am lu ma sekk ñoom maître Babacar euh, euh, moom i tamit nu am lu ñu sekk muy ku baax ma koy nuyu maître Bamba Cissé di frère ci man Eh, di yet sama yi ndax mooy denc boo eh, ah xam ne eh, sama rakk la ah, waaw rakk rakk ju ma jur rek ma ngay fóon Marie Louise Ndiaye mais tudd nag da ngaa tudd na Maître Abdou Dialy Kane Maître Abdou Dialy Kane kooku di sama avocat personnel yàgg ma défendre ci dossier yu bëri ndax man defkat laa ma ni tamit <laughs> moom te xeexkat la ba <laughs> ngay nuyu bu baax di nuyu tamit bu baax nday anta nday euh, nday anta soxna waaw nday anta la moom tamit voilà waaw waaw donc da ngaa tudd ñu baax ñoo sama jarbaat bu baax ñooñu foog ma ma ma ma jàll en passant mais xam nga maître nee nga wax nga fi lu am solo xam ne man moo nit ñi am nañu yooyu information mooy yéen daf ngeen seen investigation ba xam ki génneel wax ja mhm. Euh, ku nekk ci suuf di xam taxal bi ak yooyu. di mm. ko tasaare. di ko tasaare. Mm-hmm. mais euh, foofu kon yow euh, dafa mel ne yaa ngi tontu ñi nekk ci suuf di naan ñi jàpp ne yëf yi quand même dafa mel ne bu bu ko yaa xam génneelul Farba ko war a génneel ndax ñoo ñoo ñoom ñoo am ndax ñoom la doon ñoom ñoom la Cissé Lô doon waxal kon quelque part ñoom ñoo am intérêt pour weer Cissé wan àddina kii yee Cissé li ma la mën a wax ci loolu. Mm. mooy. Yakham Mbaye génnewul wax ji Farba Ngom génnewul wax ji ñun di suñ plainte wax nañ ki génne wax ji ak ki ko tas. bind ko carrément bind nañ ko bu carrément jébbal nañ ko procureur de la république. ñu wax ne fi mu ne avant audio ko audio yi dafa yàgg déjà c'est pas un truc. audio yi ah man <laughs> man audio yi ba jot euh, vraiment ci weer wi la. ci weeru juin bii ah. euh, bi ñu ne. waaw ah. ñu si juin wala juillet. Euh, xam nga fi lépp lu am rek tey. ñëpp doon procureur ñëpp doon juge ñëpp doon avocat ku nekk di wax moo tax wax ji ma ne la du ma ci suri comme yëbal nañ ko yoon nañ bàyyi yoon. ndax liggéey mais naa la mais mais du tee tamit dinaa bëmmax lu ma am jël. waaw yow kay bu la la neex laaj. dinaa bëmmax dinaa bëmmax <laughs> dinaa bëmmax. lu la neex laaj léegi kon defe naa ñu ngi si juillet mais kon kon si juin bi leen ci wax lu la. Ah, waaw mais da nga xaw da nga xaw a garaaw nag léegi si <laughs> léegi <laughs> Euh, euh, euh, ba ba tey ñu ni ñu ni ñu ni kii yooyu audio yooyu bon déjà leeral nga ne yàggul mais man dañu wax ne Cissé Lo yaram bi dafa sutante ba audio yi ba mu génn sa fekk na ko mi ngi si mi mi ngi ci mi ngi dallu ci benn structure de la santé ndax yaram dafa yaram dafa dafa dafa sutante kon yow nga quand même xam nga Cissé Ah, xaw nga yërëm tuuti xaw euh, mu génnee nii si sa loo du nit ku bon. waaw xam naa nit ku baax la man relation yu baax la am ak moom. waaw ah, mais nag yëgu ma ne yaram daam dafa sa ko doon wala yooyu loolu wax dëgg yàlla yëgu ma ko. aywa non yëgu ma ko que Sénégal aussi dañuy rek man lu ma tegul suma bët mu leer ba mm. du ma taxaw ci télévision wala rajo di ko wax c'est pas possible leeruma Sénégal bu fekkee li ñuy wax lépp lépp lépp boo ko déggee ne dëgg la. Mm. wala di ko topp. doctorat ba tey mais yow daal fi mu ne daal l'essentiel daal mooy yow sa plainte daal dina àgg jusqu'au bout daal plainte bi. plainte bi daal mu ngi jébbal nañ ko médiation mënut a am. ah non wax déet. waaw plainte def nañ ko devant le procureur. waaw jeex na procureur mooy def enquête am waaw. tey doo woo ñaañe ñu ñu ñu waxtaan. ah bon je ne sais pas mun parce que ñaar xam naa leen. waaw yàlla yëpp xam naa leen mais pour le moment daal wax dëgg yàlla ki nga am ne moom laa amal contact mooy yaa xam mbay mais yaa xam ne de la saison yéen fay ñaar fukki at ak juróom a ngi nii may awakaayam. Ah, lu waaw ñi ma ñi ma ñi ma attaqué pour yaa xam xam nañ loolu. lu jiitu lii. Hmm. yaxambay xam euh, yàgg nañ. yàgg nañ yàgg naa doon avocat yam boobu comme set ba léegi. Hmm. ah am na yeneen yu fi jaar ak yooyu. Hmm. Euh, dem naa tribunal ak moom mbayu ba tàyyi. ëpp na ñaar fukki at ak juróom ma nekk avocat yaa ci nit ñi nga xam ne ñoo ma njëkk a wóolu en tant que avocat ci la bokk donc bu amee problème ñëw seet si man ne ma dama am problème jàppale ma dama koy jàppale sama avocat la avocat ah, la da nga am na client ba dul yàqal na yàq di yàq aussi mooy sama mag ñoo xaw a yem su moom moom moom gën a garaaw yàq tam dafa <laughs> garaaw yàq lan mooy garaaw lan mooy garaaw dafa doy waar <laughs> ah yaa xam boobu journaliste la comme yow rek <laughs> homme politique la waaw dafa xaw a xuloo man bëgg ci làgg politique bu ñu paree nga jubóolu ñu dafa xaw a xuloo man non bu ngeen xuloo ba jubale leen waaw bu ñu paree nga jubóolu ñu parce que yéen ñaar ñëpp seen avocat la waaw gis nga loolu yàlla dogal léegi mais mais nag garaaw bu ñu léegi nag ñu bàyyi affaire avocat euh, euh, euh, en tant que Euh, ndax ma fàttali wax naa ko léegi bokk nga quand ci kuréel gu mag bu boo xam ne euh, euh, mooy conférence des leaders bu benn bokk yaakaar kon yow compagnon bu président yi Sall nga allié allié woom nga kon dafa am spectacle bu spectacle bi tam kenn kenn rafetlu ko. weesoo lépp non li xew. waaw waaw dafa ñaaw wax naa la ko kenn rafet gis nga Sénégal mhm. réewu démocratie la. Mhm. maanaam li ñuy wax liberté d'expression. Mhm. liberté d'opinion. constitution may na ko ku loo gis loo xam ne neexu la ci réew mi ni muy doxee. bu la neexee nga wax ko bu dee dëgg la ñu jol ko en compte bu dul dëgg la aussi ñu xam ne du dëgg. loolu nit ku ne am na ko mais dafa am noo koy waxee. ñun li ñuy ñaawlu ci yenn wax yi. mooy mooy yenn saaga yi. yenn wax yoo xam ne amul teggin. parce que boo waxee tey yow sa doom mu ngi lay déglu. sa papa mu ngi lay déglu sa yaay mu ngi lay déglu sa sëriñ mu ngi lay déglu. sa président mu ngi lay déglu. donc wax dafa am nuñ koy ëmbee. boo ko waxee noonu. Mhm. li nga bëgg wax yëpp. mën nga ko wax ci ci nit ñi gën a dégg. waaw mais nag vraiment wax wax yoo xam ne tegginewul saaga sa papa saaga sa yaay. Mhm. àddina jaru ko. dana jaru ko dara dara jaru ko. ñaawook nit. pour ay affaire politique wala yooyu. man day man vraiment àddina day jeex. mais mais quand même ñu bëri aussi dañu pointé du doigt euh, président Macky Sall dañu jàpp ne. Euh, que euh, Cissé euh, yàgg naa doon e, e, El Pistolero yéen nekkoon ci Ablaye Wade ci temps président Wade waaye tollu woon fii. Hmm. de dérive yi àggul woon fii. Hmm. président Macky Sall nag xëy na bu fekkonte ne bu Cissé commencé di mitraille di pistolet bu bu bu parce que président Macky tamit moom dafa tàmmul àtte xeex ku mën ëffal la. day ëffal toog fee di ëffal euh, di siroté benn glace wala di siroté benn limonade euh, ay ñooñoom di màttanteeg mbëkkanteeg yooyu mu tax di xool ku mun moroomam ba yëf yi ëpp loxo donc loolu xëy na lii li li li xew tey jii nga xam ne ñëpp a koy ñaawlu euh, dëgg-dëgg bu fekkonte ne moom sifflé woon na dès début la fin de la récréation atte xeex demee nii duñu agsi xam nga xam nga réew mi man li mu ci gën a jaaxal aussi xam naa nekk fi président métti da parce que boo doonee président de la république boo xuloo ndékki sa kër sax ñu ne président moo moo ah, moo indi xuloo bi lu nekk lu ñu yëkkati teg ko ci kaw président de la république or président de la république dëgg la dëgg la que moo jiite réew mi dëgg la ne électeurs yi nga xam ne ñooy matute ñoo ko fal mais dafa am ay pouvoir dafa am fu mu yem am na loo xam ne des fois dañ ko koy jiin sax ca du ko yëg mm. parce que nit la comme yow ko man ah. dafa am ay institutions yoo xam ne ñu ngi fii di ko liggéeyal. am ay collaborateurs am. mooy ay ay ministres ak yooyu. am ay conseillers am ak yooyu. donc nekkul ne kër gu ne mu nga fa teew. mu ngi ci ginnaaw ku nekk ku wax mu ne la déet wala war nga wax lii wala wax nga lool. ak état du demee noonu. dafa dem ba nga xam ne nit ñi peut amatuñ benn responsabilité. amatul responsabilité individuelle amatul responsabilité collective lu am rek ñu ne président la te loolu war nañ seetaat suñ bopp. président la d'accord moom lañ fal d'accord moo yore réew mi d'accord mooy doxal réew mi d'accord mais ku nekk nag da nga am sa responsabilité ci biir réew mais euh, euh, ak yooyu euh, existé wul woon quand mais réew mi la noonu lay doxee am na ay temps yoo xam ne benn parti rek boo fi amoon am na temps yoo xam ne benn rajo fi amoon am na temps yoo xam ne benn télévision boo fi amoon mais léegi tey am na yoo xam ne ñun fii xew tey yàgg na fee xew mais nit ñi daawuñ ci jot parce que télévision yi bëriwutoon réseaux sociaux yi amutoon euh, rajo yi bëriwutoon mais léegi sa kër sax loo fa def mu génn ci. mu tas mu tas. waaw léegi. Euh, euh, loolu aussi jamono mooy doxe noonu. il faut ñu seet ñun suñu comportement. naka lañ ko mun a méngoog jamono ni muy doxe waaw loolu moom loolu loolu d' accord naa léegi Cissé Lo dàq nañ ko Alliance pour la République. Euh, euh, euh, loolu nekk lu lu loo xam ne kenn balaa nit ñi di digérer nouvelle bi sax ñu enchaîner dàqaale ko ci groupe parlementaire Benno Bokk Bokk Yaakaar mais bu su ma taxee d'abord ci dàqoo APR bi commission de discipline boobu kaja bokk wala bokk ka jiite muy Omar Gueye Omar Gueye nga xam ne ku ne xam ne ne transhumant la Omar Gueye meen non ministre Omar Gueye non non je crois que c'est Badji non Ablaye Badji moo ko jiite moom. Badji Badji moo Ablaye Badji moo moo jiite. mais ministre Oumar Gueye ma nga fa. oui xëy na xëy na xëy na ci. waaw ma nga waaw mais mais man <laughs> lu tax lu ngay wax jàpp bu xam nga léegi dama la wax ne la. Mm. Sénégal réewu démocratie la. mais lu choquant tamit ku nekk yow yow yow foo jiitoo yow yow nekkoon Walfadjri. waaw léegi foo nekk. non wala fa dañ maa dàq. <laughs> ma xaw ma lay la dàq xaw ma dama lay laaj rek ma dem ñibbi France toog <laughs> eh. Eh, ay say morom noonu. borom kër tey da ngay gis da ngay gis yoo xam ne. démb ñu ngi woon Walfadjri. waaw ah. tey ñu ngi 2STV. tey suba ñu ngi ñu ngi TFM. mais ku ci nekk. tam am nga liberté. toog fii. jóge fa dem feneen parti politique aussi noonu la mel nit ki am liberté d'opinion am aussi mais du ngeen ko ne fii nga mos a bokk fii ngay toog ba dee c'est pas possible. Ah, mais nag bu seetee ne intérêt feneen non man transhumé mais dama leen di défendre parce que man. avocat la parce que je suis pour la liberté d'opinion ah. pour la liberté d'expression ah. mais pour la liberté d'action. même sur le plan politique nit ku dem ba ne léegi damay ànd ak diw mais quand même yeewu béy parce que xam nga gan du yeewu béy mooy xam nga man nangu naa euh, comme li nga wax sànq journaliste yi euh, bu ñu demee bu ñu ñëwee bu ci journaliste rek la foo liggéey fii tey suba nga jóge fa par exemple bu ñu ñëwee bu ñu nekkee fii ñu ñu fay cent francs waaw euh, kële Youssou Ndour ñëw nañu cent franc bi naa leen fay cinq cent. débauchage la. waaw waaw waaw débauchage waaw waaw kon ngir xaalis. ah kon moo tax naa ñoo yem. ah mais transhumance ah, sur le plan politique. Ah. boo fekkee ne fii tey dekk nga fa di def politique. doyatu la. nga ne fii moo ma doy. nga ah. dem fa ne fii laa gën a mën a liggéey sama réew. fii laa gën a mën a liggéey mais nit ki aussi buy def politique dafa am lu ñu ciy séentu. ah mais moom tamit dafa bëgg yokk sur le plan politique sur le plan humain sur le plan social. mais nag bul sàcc. bul war. Ah. bul def la warul ah, def bu yooyu parce que parce que Omar bi lu tax ma ne ma insisté sur kii mooy mooy lu choquant quand même lu choquant mooy. ndax li mu ba bokk nga xam ne fondateur. salaamaaleykum waaw mais nag bàyyi la lu ñu nga xam nga fondateur pour man pour man membre fondateur. gis nga gis nga gis nga gis nga kuréel kuréel boo ci nekkee. Mm. di parti politique ak leneen. Mm. na nga fexe ba ràññee ci ci sa liggéey. mu yow mun nga ma jiitu. ci benn parti ma ñëw fekk la fa gën a liggéey ci parti bi fuuf. ëpp la fa engagement ëpp la fa. ba mu neexee nga ñëw ba mu neexee mooy ku yore réew kenn ñëw ànd ak Macky Sall ñii moom dooleel ko ba kii yëf yi ñëw mais xam nga am na yoo xam ne sañul bañ la. ah sañul bañ la waaw. am na tey par exemple nga nekk ci parti. ñu bundu leen. nga bàyyi. waaw am ñu la topp. ñooñu la topp. seen intérêt moo tax aussi ñu topp leen. parce que nootuñ fa des. xam nga am na ñoo xam ne bañ fa nekkee kenn bu nu waxatoo leen ñu ngi liggéey ñu ngi féex mais duñ fa bàyyi dañ fay topp mm. gis nga nit kii lu muy def rek daf ci am intérêt waaw d'accord ñii taxaw naan dama xaroog dama kii yooyu seen intérêt fa la nekk de mm, dëgg la loolu ah, génn foofu ok ah. <laughs> léegi non non <laughs> ok man neex naa jubóol léegi léegi léegi do euh, euh, mais quand même euh, maître bii nag ma ñëwaat kon ci l'avocat le juriste ñi euh, ñi ngi ruuma naata euh, ñoom euh, li ma wax ne dafa mel ne plan de liquidation totale de Cissé Lô effacement de Cissé Lô de la de la et politique donc ñu ngi ruumanaat ne dañuy règlement intérieur bi dañ koy dañ ko dañ ko bëgg a modifier pour dugal fa disposition boo xam ne désormais tout député boo xam ne da nga am ay ñool ñool ak sa parti ba sa parti dàq la tu perds de facto Euh, ton mandat de député alors que euh, règlement intérieur bi li mu li mu li mu li mu wax mooy député boo xam ne démissionné woo sa parti ak loo fu mu lu mën a xew tu restes député parce que nag réew mi la fal. waaw règlement intérieur assemblée nationale dafa ne député bu démissionnel boppam. bu mm-hmm. bàyyil boppam. parti fekk nga nekk député. tu perds tu perds ton mandat parce que parti bi moo la faloon. foofu la ñu léegi nag xam nga Sénégal dañu wax rek. yow dégg nga ne dañu ne xaw ma dañuy préparer. pour man dégg naa démb man loolu. RFM ñoo waaw man loolu. dégguma ko gisuma ko. mais euh, gisuma nit aussi. yuy def proposition yu mel noonu. assemblée nationale waaw li xam naa dégguloo dem rek. xam naa ne kañ boo wax boo ko waxee dëgg la parce que euh, ñii euh, kii maa liggéey député grand parti. la ñoom Babacar Fall invité woon RFM matin. il en a parlé fekk ñu ko doon ruumanaa suuf moom moom il a il après ci journal ba. Euh, euh, waa RFM def le travail de journaliste qui s'y est mooy euh, collecter information bi après ils ont ils ont appelé Pape Biram Touré mi nga xam ne mooy vice président bu groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar qui est revenu sur mu défendre thèse bu daal ne effectivement ñoom loolu mi si seen xalaatam la nañ waaw waaw ah, mais yow sa xalaat yow en tant que man aw ma ci xalaat man aw ma ci xalaat man du ma député ma APR ah. amuma ci xalaat mais ma ce que loolu tamit est-ce que. mais xam nga ma la wax la xam nga député. bu ko neexee mu def proposition de loi à l'Assemblée nationale. li nga xam ne yoon moo ko teg. mooy boo defee proposition boo xam ne dafay engager ay dépenses il faut nga xam nga wax fan ngay ulee ay recettes. donc ñoom bu ñu toogee ne dañu bugg def lii dañu bugg def lee dañu bugg def lee. mais mm-hmm. am nañ ci sañ-sañ mais est-ce que dañ koy def est-ce que def nañ ko. Mm-hmm. loolu mooy coow li chaque jour nga dégg benn député bu xëy ne lii laay damay déposé tel extra extra nga dem seet ne déposé wuñ dara. Hmm. moo tax man vraiment Aïssatou dama maanu ci wax <laughs> yi. parce que li may dégg dafa bëri. dafa ci ci li ciy am dafa néew. donc fii Sénégal dëkku waxkat la hmm. ñun dëkku waxkat lañ nekk. bu fekkee ne liñ doon wax dañ koy jëf. kon passé nañ développement kon ñooy gën a développé États-Unis ak ay France ak yooyu. mais malheureusement dañuy wax rek. Ah, wax rek dëgg dëgg la man nag vraiment bëgguma bokk ci wax ju bëri ci. waaw d' accord léegi euh, bu ñu jeexal la kii jur dina ñëw nag ci beneen euh, wàllu mooy euh, Cissé Lo à part saaga yeeg yooyu am na ay question de fond yakam yoo xam ne bëruxul na ci biir mooy pose na fii loo xam ne yàgg na ko wax. Euh, te wax na ko sax devant le ministre à l'époque euh, à l'Assemblée nationale mooy euh, semence yi nga xam ne dañ koy saax saaxee ñi ko ci war a jot duñ ko jot ñi ko ñi ko ñi koy jox dañuy dem di ko jaayaat aussi ay aussi werceet wax na fi aussi yu bëri ay affaire de presque loo xam mun mën nañ ko méngale ak détournement de deniers publics wax na tudd na fi building administration et cetera donc Euh, laaj bi mooy yooyu bu ñu bu ñu bu ñu jëlalee saaga yi rek si su loolu yooyu nga xam ne euh, ay lièvre la yoo xam ne moo ko soulevé euh, est-ce que jaaduwul la je parle aux citoyens sénégalais est-ce que jaaduwul quand même yoon liñ bët loolu enquête ko xool la si loo wax ñamu joxoon baaraamu tuuma ñamu ñamu tudd. waaw xam nga xam nga réew mi dafa am nu mu tëddee. Mhm. dafa am. ay corps de contrôle. yoo xam ne ñooy contrôler. seen ndax euh, ñi nga xam ne ñoom lañ dénk. yenn responsabilité ñu ngi koy doxal bu baax ndax luuba lañ ci wala déet. am na ci. Euh, citoyen aussi mën nañu manifester yenn saa yi. Mm-hmm. Euh, seen seen indignité. muñ mm-hmm. déggee yenn yi. Mm-hmm. mais boo demee bañ tudd ne ay Aïssatou Diop Fall. Mm. yow jox nañ la telle chose nga mm. détourné ko. Mm. mais yow ay Aïssatou Diop Fall bu fekkee nu dëgg. yaa war a jaar ci yoon pour wane setal sa bopp donc yooyu ñuy wax am na ay nit yuñ ci tudd xam nga man avocat la ki nga xam ne moom lañ tudd saaga ko saaga ay woojar mooy Yakham Mbaye dafa ñëw porter plainte ñi nga xam ne dañ leen tudd ne da ngeen luubaal da ngeen def lii da lef na mais ñoom ñoo war a jóg setal seen mais mais mais sa procureur tamit ndax gis nañ ko moom moom mi autosaisir woo ci yeneen pourquoi est-ce que yii tamit euh, yu mel nii tamit jaaduwul euh, procureur bu dee ñëwee ñu tuumaal euh, defuñu ni ni yaa xam def est-ce que tamit jaaduwul procureur wu procureur buy autosaisir dafay fekk la ñu tuumaal ñëpp bokk ko Ah, ñu tuumaal non non ñu tuumaal ay ñu tuumaal ay institution lu mel ni président de la république en tant que institution lu mel ni assemblée nationale mm. lu mel ni haut conseil des collectivités territoriales yu mel ni justice mm. nga jël tuuma teg ci kaw justice yëpp d'une manière générale mm. yooyu procureur boo ko defee mun mais buñ tuumalee Aïssatou Diop faal wala tuumaal Ousmane Seye Aïssatou Diop Fall moom mooy jóg fajal ko boppam ba euh, ba benn dossier fii la ñuy jeexalee nag ci maître Ousmane Seye avocat alors euh, Thione Seck euh, moom tamit ci sa client yi la bokk ci coow li ko fi toppoon muy affaire faux billets yooyu cappaandaw bi agsi nañ su kon condamné nañ ko trois ans yoo xam ne huit mois yi lay tëdd mu jot na ko tëdd ba pare moom neuf ans tëdd wala huit mois neuf mois tëdd huit mois voilà donc dëgg na neuf sax te tën na neuf mois ñoom ñu kon may na benn mois. may na benn waaw na benn dafa baax. donc ko buuñaa sarax sarax la. <laughs> sarax la <laughs> léegi euh, ñu xëy suba ñu euh, euh, ba ñu fiy déggee ba génnee ñu déggoon ne yéen avocat bi da ngeen déposé pourvoi en cassation pour pour toj daan ba. mais fan yi ñu ngi déggaat ci ci yi que ni coon finalement bàyyi na kii bi bàyyi na fii mu sedd. Euh, nangu na daan bi euh, defatu pourvoi en cassation yaay avocat ma bëggoon nga leeral. loolu du dëgg. xam nga du dëgg tey du dëgg ëllëg. ah xam nga Sénégal doy na waar. Hmm. man bi ma déggee loolu daf daf ma jaaxal. ah dama jël sama téléphone téléphone ak coon. ah bon coon ah. ne ma xam nga man yabuma la. Ah. loolu la ma wax bu may dégg. Hmm. dama ne xam nga ne yabuma la. su ma ñëwee waxtaan ak yow. ci décision boo xam ne daf ma daan. ñu waxtaan ba tënk ma signer le pouvoir. ne la demal nga def pouvoir euh, pourvoi en cassation nga dem def pourvoi en cassation bu ma ko naree dina déposé naa ko yàgg na moom moo ma signalé pouvoir ne ma demal nga déposé ko ma déposé ko yàgg na mu ne ma xanaa su ma demee ba ciy dellu ginnaaw yow laa ci njëkk a parce que yaay sama avocat xanaa yabuma la mu ne ma waxuma kenn waxuma kenn ne ko bàyyi naa suma euh, pouvoir en cassation pourvoi en cassation te bu ma ci doon wax ak laa ci njëkk waxal parce que ba mu koy def dafa ñëw ba ma kër waxtaan ceeg man. mu waxtaan ceeg avocat yi ma ko bokk bokkaloon. ñu d'accord mu signé. ngeen yóbbu autorisation parce que buñ la daanee. ci affaire u tëj. cour d'appel booy def pourvoi en cassation il faut nga am pouvoir. boo xam ne yaa koy jox. sa avocat pour mu def ko donc luñ ko def mu ci yëguloo ko ci autorisé ko. c'est la mooy procédure bi. lool la ñu signé ñu déposé ko. dossier ba xëy na sax léegi dem na cour suprême. ñu xëy suba bind ne Thione dafa désisté du dëgg tey du dëgg suba du dëgg loolu laal bëgg wax. mais mais mais quand même grand euh, euh, est-ce que Thione c'est pas trop risqué mu mu mu mu mu euh, bi bu ñu bu ñu jugé bu ñu affaire yi mën na mën na mën na gën a oyof waaye mën tàng ci moom de. mënul gën a tàng. Ah. xam nga ñun ay avocats lañ. maa mhm. j'ai fait trente cinq ans de bar. Hmm. bu ma plaidé wul. dëgg la. dossier bu jaar yoon xam naa ko. parce que li magistrat yi jàng lañ jàng. bu jaarul yoon xam nañ ko. dossier Thione seek jaarul yoon tey jaarul yoon ëllëg. niñ ko attee. même ki ko attee cour d'appel waru ko woon attee. mais xam nga yow peut-être jàngoo droit. mais dama lay wax benn affaire buñ la attee première instance. Hmm. boo ci d'accordul xam nga droit def appel. waaw loolu mooy atte atte mooy juge bi. Hmm. prononcé wu ne yow ka dañ la jiiñ noonu. da hmm. yaa def. léegi atte naa la ne yaa def tëj naa la wala mu ne atte naa la defuloo banaa la loolu amul ci dossier Thione Seck Thione Seck Thione Seck première instance bañ fa ñëwee juge bi dafa ne man du ma dugg sax ci foow bi ndax yaa def wala waa deful parce que procédure bi baaxul annulé naa ko daal di ne procureur de la république tu vas te pourvoir tu vas te pourvoir nu la neexee maanaam mooy reprendre procédure bi ci beneen façon waaw procureur bi def appel loolu waru ci woon def appel xam nga lan nga ci def appel ci jugement bi lim ne baaxul loolu rek nga mun a def appel mm-hmm. mais munoo def appel ci Thione Seck def na wala deful mooy au fond bi ñëwee cour d'appel mais juge bi dafa ne waaw léegi procédure bi am na ci lu ci baax am na lu ci baaxul léegi nag man damay jël sañ-sañ atte Thione Seck seet ndax def da wala deful ñu ne ko déet bul wax loolu bul def loolu parce que boo ko defee boo ko attee tey mais du ci amul benn décision boo xam ne mën nga ci sukkandiku en première instance boo xam ne Thione Seck def na wala defut donc yow juge d'appel kenn saisirul wa mm-hmm. code de procédure pénale dafa ne article 476 cour d'appel buy saisiru dafay saisir dans les limites de l'appel mm-hmm. appel bi ñu defoon fan la ci jugement bi baax na wala baaxul ci ci ci jugement amut mm-hmm. procédure bi baax na wala baaxul foofu la war a yem moom mu jégg loolu atte Thione Seck condamné ko tey Thione Seck mënatul def appel ah, mënul def appel fu muy defee appel fi waroon def appel ñoo ñoo jël dossier bi ci seen bopp ne ñun nag dañ lay atte part force ndax def nga wala defoo. mooy pouvoir d'évocation. Mm-hmm. ca code de procédure pénale am na fu ñu wax une benn benn seul cas le juge d'appel mun a def pouvoir euh, euh, la war a am pouvoir d'évocation. Mm-hmm. muy article 508 li may wax bu yóbboo ñu dem seeti ko. du code de procédure pénale mm-hmm. nee na bu fekkee ne am na jugement jugement. boo xam ne dañ ko annuler bu ko juge bu ñu def ci defee appel bu juge d'appel bi ñëwee am na droit am pouvoir d'évocation. Mhm. or jugement amul fii. Mhm. jugement amul fii léegi moo tax coon Seck li mu mën a def rek mooy def pourvoi en cassation. te xam nga ne pourvoi en cassation pouvoir en cassation pourvoi en cassation ak ak appel du benn. parce que appel dañuy jëlaat jugement bi. li ci xewoon defaat ko. te pourvoi en cassation dafay xoolal nag jaar na yoon wala jaarul yoon. moo tax mu def. Euh, pour waa pour ñu wan ko du par principe. pour ñu wan ko ne juge d' bi ni mu ko attee ni mu jëlee dossier bi atte ko jaaru ko ci yoon. d' accord ensuite li mu annulé naa lii lee baax na lee baaxul. mais loolu ñun d' accord uñ ci ni mu interprété article règlement cinq de de de moo tax ñu ne dossier bi sax du woon dossier coon sekk dossier yow la dossier man la dossier ku nekk la. parce que suba bu la jàppee police wala gendarmerie. sa awakaay ñëwul teew ñu jël dossier bi yóbbu ko. jugement mais juge bi woon na ne ah waa Aïssatou Diop day déglu nañ ko ci avocat am nekkul fii mais lii baax na ci lii baaxu ci. Euh, dañ wax tamit ne euh, cour bi euh, dafa ordonné ñu dellool coon 33 milliards. non pas milliards. non non millions. 37 millions 37 millions yi. Mhm. mais mais faux billet kenn delloo ko. faux billet amut xam nga lan mooy faux billet. mooy faux billet. mooy billet buy noroog billet bu baax. Mhm. billet boo xam ne tey baaxut mais su ma la ko joxee nga yaakaar ne billet bu baax la ah, nga mun ma ko wecci ah. wala ma jënd ci dara ah, ñun bi nga xamee ne ñoom jël nañ sac boobu ñu fekk ci kër Thione Seck ne foo billet ci ne ba ne sax ay milliards la mais biñ ñëwee nañ indi leen saak bi ñu xool li ci nekk ñu ne sac bi nekk fi ba mu yàgg procureur indi benn mbuus daal dina indi na échantillon dañ fa fekk ay karton ay mouchoir ak ay billets glacés yoo xam ne kenn ñemewu ko génne ne danga koy jaay ci boutique bi wala danga koy def supermarché wala da nga koy yóbbu feneen kenn mënu ñemewu ko yóbbu banque loolu du foo mm. loo xam ne kenn mënu ko jaay carton la wala billet glacé moo tax ñu ne sax juge bi li mu condamné Thione Seck ne ko danga nga fa bëggoon jël xaalis bu baaxul di ko di ko circuler ñu ne ko loolu juum nga parce que xaalis bu baaxul dafay nuroo xaalis bu baax mm. mais loo xam ne këyit la ak billet yoo xam ne billet glacé la amul sax dimension billet bu baax. Mm. mais wax dëgg yàlla loolu du billet. Mm. loolu du faux billet. mais Ousmane Seye euh, euh, léegi nag ñu ñëw nag euh, ci foncier bi. Mm-hmm. foncier bi maître da loo xam ne wax dëgg yàlla askan dañ ci dañ ci sonn ñun Ablaye Wade la ñu fekkee waaye jamono Ablaye Wade sax bëri na. Mm-hmm. mais lu mu mel nii nii fii. Euh, actuellement dafa dafa dafa dafa dafa ëpp daal. Hmm. yaa ngi dégg ndengleer ak euh, Babacar Ngom Sedima euh, littoral bi chaque jour suufu jàmbur suufu nii suufu sa ceci suufu cela suuf suuf suuf suuf président Macky saal bu mu ñëwee créé na fi réforme du foncier ñam ko jox ñëpp ku nekk def ko sa rapport jox jox ko ba tey fu fu fu raas daal xëndéem maître ñun naka lañu mun def ba foncier bi euh, euh, normal mhm. réglo mhm. ñu war a am suuf sama xeet gi ñu war a am suuf am suuf normal mhm. euh, lépp nekk clean fine nice waaw c'est vrai que foncier bi yow yaa ngi yem sax ci Ablaye Wade mais mun nga pousse ba ca Senghor sax gis nga gis nga fan résidence bi ñi fa dëkk yëpp hmm. buy la waxee dañ fa dëkkee presque dañ leen ko may xooluma loolu ñu ci dara ñu jox leen ko te foncier la mu ngi jàkkaarloog littoral bi ñuy wax foncier bu baax bi la sax ngi noonu nga dem feneen ak feneen dëkk mun nga wax ne depuis Senghor ba léegi ah, vraiment réglé wuñ foncier bi mm-hmm. Mm-hmm. président Macky Sall am na volonté mm-hmm. maa la wax li pour régler le problème foncier mais da ngay gis foncier moom bu fekkoon dañ koy jaral ci yoon je crois que lii yëpp du ci am parce que depuis Senghor depuis 1964 dañu créé li ñuy wax domaine national. dañ mm. ne suuf si. Mm. bu fekkee ne yow moomoo ko. Mm. bu fekkee état moomoo ko askan wee ko moom. Mm-hmm. cest la terre appartient au à la nation. Mm-hmm. mooy le le national bi ñu créé depuis 64. Mm-hmm. bu ñu ko créé dañu ne koo xam ne yaa moom suuf. muy nit wala communauté ñu may la délai ne danga nga ko immatriculer ci sa tur wala ci turu communauté mais bu délai boobu jeexee ci vraiment immatriculé woo ko. suuf si dugg na ci loxo askan mm-hmm. domaine national mm-hmm. soo xoolee léegi presque ñetti domaine moo am mm-hmm. am na domaine national yoo xam ne maire yi ñoo koy joxe par délibération ak yooyu am na domaine de l'état muy ñaari pàccoo mooy domaine public de l'état am domaine privé de am li ñuy wax nag titre foncier titre foncier mooy loo xam ne yow sa suuf la yaa ko moomal sa bopp boo ko xasee ba immatricule surtout jeex na bu fekkoon dañ koy defee noonu problème du am mais li ñuy wax domaine de l'État muy domaine public ak domaine privé de l'État dañ ko jébbal service des domaines ñoo koy joxe alors créer fa lu ñuy wax commission domaniale hmm. coow la yëpp fa la nekk ci commission domaniale ni ñuy joxee suuf si li ñuy wax littoral bi tey hmm. am na benn loi bu ñu prévoir prévoir ko ne c'est la loi sur le littoral hmm. kooku war nañ ko watee mu gaaw am na lu ñuy wax domaine maritime foofu kenn waru fa dëkk. dañ ne peut-être à cent dañ ko protéger. Mm-hmm. boo fay tabax aussi waroo fa tabax en dur. c'est c'est tabax boo xam ne se précaire la saa la di din nga war ko dindi. Mm-hmm. xam nga loolu bu ko respecté woon coow du am. mais respecté wuñ ko. Mm-hmm. domaine maritime bi ñu ngi koy saax saaxe. littoral bi ñu ngi koy saax saaxe. kuru faan yi saax saaxe dañ ko ba pare. du ci Dakar rek. boo demee yaa ngi may wax jàngaleer ak sa effectivement suuf si. war nañ ko mettre en valeur parce que suuf aussi kenn du ko jël rek di ko xool ki nga xam ne mun na ñëw exploiter ko ba pare nit ñi gis ci seen bopp ñi nga xam ne ñoo fa doon bay di fa sàmm gis ci seen bopp loolu amul benn problème am na yoon lu ñu koy defee mu ne la ko jox président mu ne la ko jox pour nga investir fa ah defar fa nag ay école defal fa ay hôpitaux daa di fa def te foo xam ne passage boo xam ne fala fala fala sàmm gi <coughs> betaay bi di jaar nit ñuy bay aussi nga bay leen fa ñuy bayee parce que ci la ñuy dund ci la ñuy lekk loolu bu ñu ko defoon jàmm na ñooy mais man foog naa ne ci sama xam-xam fi mu nekk nii commission boobu ñu def commission domaniale service des domaines boobu mm-hmm. di joxe suuf moom lañ war lañ génnee ci seen loxo mm-hmm. domaine dafa war a génne loxoom ci joxe suuf. mais ko a joxe kon. mais président xam nga créé na fi taay yi benn société boo xam ne de promotion immobilière la. waaw je crois que société yu mel noonu la war a créer. boo xam ne ay nitu xam-xam yu maandu. ñoo ci nekk di xool nu ñuy joxee le domaine de l' état le domaine public ou le domaine privé de de mhm. ñu jël aussi seet ndax maire yi war na leen bàyyi toujours. ñuy joxe suuf si sur le domaine national en tout cas réflexion boo xam ne. président junjoon na ko. am na je crois professeur Soura et tout ça. war nañ xoolaat liggéey boobu rapport boobu ñu xool seet li nga xam ne. moom mun nañ ko ci yokk. mun nañ ko ci mm-hmm. dindi defaraat ko ba mu jag. en tout cas suuf si. ñu mm-hmm. génne ko mm-hmm. domaine de l'État. Euh, euh, beneen scandale euh, nekk ci ci ci ko table bi. mu tukkee ci Abdou Karim Sall ministre environnement mi nga xam ne moo toog xolom sedd mu mu am fermam dégg nga xool ba xool xam ne yaa ferme bi de ay ay kii am na am na ay picc am na ay ceeli am naa lii am naa laa waa cee dama manqué ay kéwal ah oui cee cee maa mise l'environnement ci Ranérou oh là là Ranérou am naa fa benn ran oh là xaama dem jël ko maay kilifa gi xaama dem euh, euh, jël fa ay ay ay ay ay ay ay ay ay kéwal dafa noonu noonu la ñuy waxee gazelle ci olof. ay kéwal euh, ay gazelle oryx. ay gazelle gazelle oryx. mu ñu ñu en voie de disparition. en voie de disparition. extrêmement protégée comme du lait sur le feu dafa naa sax mooy tamit moo ñu ko moo ñu ko dafa doom moo mu mu am fit gu doy ne jël si juróom benn. Euh, yóbbu leen euh, am am yéen yóbbu leen ci ferme uniquement pour le plaisir bu def dek pour décorer euh, yëf ya ba mu am si ñaar ñoo xam ne dañ si génn àddina muy muy muy doy waar ñoo xam ne loo xam ne métti na ñu bari ku ci mel man mii ndax bàyyi ma dafa mel ne comme tout tànk yi waaw ñooñu euh, euh, vraiment man na dama dama bëgg nag ay bàyyi ma sama ñi ñi ma dëkkal xam nañu ko bëgg ku bëgg ay ay rabu àll laa donc euh, ñu ñu ñu ñu defal leen benn forme bu mu muy muy doy waar daal ma bëggoon nag metre nga wax ma d'abord noo gisee yëf yooyu ak tamit li nga xam ne ñu bay jàpp nañu bu dul abus de pouvoir conflit la ndax bu nekkoon ministre de l'environnement amul sañ-sañu fitu Euh, euh, naan ba mu nekkee fay xaw ma ARTP xaw ma lan fi tam mu mus ko may mu naan naa dem euh, jëli ji ay kéwal indi leen fa uniquement pour ñu ñu ñu féex a fàttali ñi dañoo bakkan di dund donc abus de pouvoir wala conflit d'intérêt ndax mooy ministre de l'environnement mooy mooy mooy jiite tamit parc nationaux ba jiitee kay autorisé kéwal yi génn foofu ban jàngat nga ci am ak tamit dëgg-dëgg lan la yoon wax ci lu mel nii waaw Aïssatou xam nga kilifa du dégg rek du dégg tël rek nga dabb na xam nga euh, ñun ci suñu métier dañu wax dis-moi les faits je te dis le droit mm-hmm. yow fee ñu ngi ko relaté léegi effectivement gis naa ci journaux yi mm-hmm. ñu bind ne noonu la demee mm-hmm. mais man wax dëgg yàlla xamaguma dëgg-dëgg ndax noonu la demee wala parce parce que euh, wax dafay yenu maanaa ca vraiment dafa war a tegu ci yoon. parce que man gëw ma ne ministre de l'environnement am na sañ-sañ dem uti ay këwil yoo xam ne ci parc national nag di ko indi ci parc privé. mais non franchement. mais mais xanaa déggoo moom la mu la wax moom. déggoo moom lu wax déggoo la mu démenti mais lu wax. mais mais moom de moom moom démenti yi sax ñoo ko gën a pëtaxal. lan la wax ndax dafa ne. waa effectivement ba ba pare lu lu garaaw mu ni. du moom donc moo moo am euh, euh, kii privé euh, parc privé que ni effectivement am na ñu bëri ñoo xam ne comme moom dañu am parc privé ñu autorisé ñu am na fooy jaar foo xam ne dañ lay jox dañ lay autorisé nga jël ay kéwal ak yooyu animaux animal bu la neex indi ko sa parc privé moom que genre daal moom euh, euh, euh, kii wu nu ñu koy waxee qui la loi. xam daal li ma la mun a wax. moom moom c'est ce qu'il a dit. man wax jooju. waaw comme ni nga ko waxee. Mm. bi ma ko liiree. dégg ko ci ban dama ne xëy na demewul noonu. noonu la demee parce que dama yaakaar parce que dama yaakaar ne. doo nekk ministre ñu dénk la tout l' environnement. animaux yee yu kenn nga war leen protéger. nga war leen protéger. jël ay animaux yoo xam ne en voie de la. ne yow da nga leen di yaral sa bopp da nga leen di yóbbu seen parc euh, bopp. loolu loolu conflit d' intérêt la. Ah. détournement de pouvoir la. Ah, bu fekkee ne noonu la demee. maa yaakaar nag ne li ma la waxoon léegi. gis nga réew mi wax ji bëri na. Ah. ñiy tuumaal bëri na. mais dafa am ay kuréel yoo xam ne ñu la tuumalee mun nga fa dem pour setal sa der bu dul tribunal di assemblée nationale je crois que euh, réew mi aussi dafa am ay ay institutions yu ñu fi teg yoo xam ne dañ war a def seen liggéey euh, gis nga bërki démb boo demee France le docteur rawul la bi nekk Marseille ci affaire Covid 19. dañ ko yóbbu assemblée <laughs> nationale. déglu ko mu wax mais yu mel nii bu amee. <laughs> assemblée nationale daf lay oo. ne la dégg nañ ne. da nga jël ay këwél bu paree parce que Sénégal <laughs> aussi Sénégal dafa am ñoo xam ne dafa mel ne yàlla dafa leen jagleel lu ñuy wax teranga ñoom daal da leen di nommé ñu nekk ministre wala directeur de société lu leen neex def te dara du leen ci fekk mais loolu dafay tax askan wi di révolté wu ba pare nag di joxoñ président de la République parce que moo leen fa teg waaw ne ko lii nit ñi buñ ko sañee yow yaa leen ko may parce que man loolu nga wax wax dëgg yàlla en tant que citoyen sénégalais di avocat mënu ma ko gëm mënu ma ko gëm jusqu'à preuve du ah. contraire gëw ma ne le ministre de l'environnement colonel Momar Gueye ku ne xam na ko colonel Momar Gueye ah, xam naa colonel Momar Gueye nit ku baax la environnement moom ci moom sax moo gën a leeral ne dañu ne dañu dañ ñëw ñetti bet moom xamal yan condition la ndax nee na juróom benn bet juróom benn gazelle yi bañ leen jëlee euh, euh, ci parc bi da leen indi fii ci ci euh, euh, euh, këru ministre bi ñëw nañu en bonne santé mais bañ leen di wàcceel ak condition de voyage yi xam dégg naa mu wax dañuy tiit. dañuy tiit ba ba yow ak boobu. ak non loolu loolu loolu daal li ma la mën a wax. war nañ ko leeral. bu ko assemblée nationale leeratu. na commission environnement assemblée nationale. bu auto séjour président de la république ci boppam war na leeral askan wi. parce que nag askan wi. ñoom moom lépp lu fi nekk. dañ leen di ñi ñu fal moomuñu réew mi. dañ leen a dénk. bu ñu doxalee loo xam ne du noonu. nañu leeral balaa fi jëye di am. <laughs> Ah, ah, ah. parce que bu dee dëgg la ñu jël ay sanctions nécessaire mhm. bu lu dëgg la ñu daal di taxaw ak askan wi wax leen ne lii ñu wax demewul noonu nii la demee. parce que askan wi aussi dañ am dañ am euh, droit. ñu leen di informer objectivement ñan ñoo leen di informer mais ñuy teg ci bopp réew mi ñi ñu wóolu fal leen ñoo leen di informer teg nañ fi assemblée nationale teg nañ fi gouvernement boo teg ñooñu bu coow yi amee buñ ko xet non non nañ wax askan wi looy ay bàyyi ma la ñu ay animaux bu dee kilifa nga bu dee kilifa nga nga nekk ministre boo xam ne président de bi moo am ci yow confiance ah. am lu mu la dénk ñu tuumal la ah. boo boo dindiwul tuuma sa bopp kala teg war na war def enquête seet ndax li ñu wax dëgg la wala du dëgg moom dafa am chance moom mu nekkee Afrique mais bu mu nekkoon parce que parce que parce que bàyyi mooy ma yooyu aussi dañu am important ci réew comme yow lañ comme man lañu dañuy nooy waaw mënoo leen leen jël parce que ah, tey am nga doole dem dem dem jëli leen ah. ca fañ leen a denc nga dem leen di indi suma kër pour ton bon plaisir ça gëw ma ne noonu la demee ah, mais bu fekkee noonu la demee mais c'est une faute lourde très lourde kon doit sanctionner président Macky Sall moo ñu war a jàppale ci ñu mel Sall mii ñu la jënd ay yëfam donc euh, euh, Covid bi. waaw. Euh, sa jàngat ci nu ñu yëkkatee état d'urgence beeg ñoom couvre-feu ak relâchement bi nga xam dafa mel ne dañoo relâchement. et surtout ah, au contraire tey la wàllu gën a ay. mais moo tax yaa je crois que nit ñi waruñu def seen bopp ne dafa am ne au contraire mais nag li tax ñu dindi. état d'urgence bi lu tax ñu bàyyi nit ñi di dem dëkk dëkk franchement mënuñu woon te nit ñi leen di couvrir yow gis nga yow mm-hmm. xool nga toog nañ fi bi ñu defee état d'urgence bi tëj jàkka yi mm-hmm. tëj église yi tëj ah. yëpp nit ñaa ngi commencé woon di manifester ne dañoo bëgg julli ji mm-hmm. dañu bëgg voyager Sénégal aussi il faut ñu xam lu ñu bëgg euh, état bi aussi amul pouvoir téye nit ñi seen kër te amul leen jox du lekk du naan il faut que comme ni ko président waxee ñu apprendre à vivre en mais loolu cela pas dire que waaw communication bi ñu ngi koy def bu leen ko jaawle nag ak toujours ministère de la santé li muy def hmm. naa di ne am na temps yoo xam ne dee nañ am na temps yoo xam ne feebar bi dal na leen am na temps yu wër kooku information waaw kooku su soñoon sax ñu leen koy jox journaliste yi ñu koy def lu matin euh, mais dañ ne léegi communication communautaire ci base lay jóge dañu war a au niveau des quartiers mm-hmm. Euh, former nit ñi les jeunes et les femmes ñu nekk en brigade ca aussi force de l'ordre il faut ñu utiliser gis nga Sénégal loo wax wax wax wax ca jëfoo wax ji day dugg fi génn fii gis nga bi ñu commencé couvre-feu bi dafa amoon ñu commencé di génn heure bu leen neexee yooyu mm. bi militaires yi génnee ak ak policiers yi di leen di téye di leen di yóbbu et tout ça xaw ma ndax xaw ma bàcc na xaw ma bàccu leen mais en tout cas daal respecté nañ affaire bi wax ji ñuy wax aussi mm. nit ñi di regroupé bañ sol masque di def lu leen neex il faut que force de l'ordre taxaw ci man dama ne nañ incriminer mm-hmm. la mise en danger d'autrui c'est-à-dire que ñàkk sol masque di di regroupé wu mm-hmm. ci marché yooyu dañ ko war a def délit mm-hmm. kuñ ci jàpp yóbbu la tribunal ñu àtte la ah. léegi euh, année scolaire bi président Macky Sall prolongé na ko ba euh, septembre rentrée bi euh, nekk si je ne m'abuse dans la première semaine de de de novembre Euh, donc euh, foofu laa bëgg nga wax ma noonu si xalaatee ak aussi euh, école privée yi ni nga xamee ne noonu la ñuy xaw a am ñagas-ñagas ak parents d'élèves yi ci ne dañoo war a fay ñetti weer yi nga xam ne moo lañu école tëjoon te parents yi ne nag dëgg-dëgg ku jàngul nag ah ah ah sama doom jàngul pour moo fay ak frais mu toll dafay dafay metti ñaar yi rek metti loo mu ci mën a. waaw xam nga affaire njàng moom creuse pas jàcc pas. waaw normalement. école privée yi day am contrat ak parents d'élèves yi da ngay jàngal sama doom bu weddee ma fay la normalement bu xale bi jàngiwul man sama doom bi mu ñëwee di ma laaj sax di ma naan ma da nga da ngay fay dama ne ko mais est yaa ngi jàng mu ne ah ñu ngi ñuy yónnee cours yi ci ordinateur yi bon j'ai été compréhensif ma bon la limite loolu sax bu ñu ko defee nañ ah, fay parce que ñoom tamit professeurs yooyu ci la fey fay fa ñu nekk aussi fa la ñuy fay loyer chargé aussi il faut que parents yi am compréhension mhm. ñi nga xam ne kañ moom mënuñ leen fay boo ñi nga xam ne élèves yi jàngi wuñ mhm. du leen yónnee lu ñu def dara dañ tëdd seen kër di nelaw ah. loolu mënuñ laaj élèves yi ñu fay leen mais koo xam ne ñu ngi yónnee élèves yi cours wala élèves yaa ngi jàngi wax dëgg yàlla parents d'élèves yi am nañu compréhension pour fay kii léegi nag euh, pour année scolaire bi ñu ko def xam nga am na ñu ñu ma dégg ñu ne woy président la république il est seul ah moom am non non mm. président Macky Sall bii ma xam mm. il te il prend des décisions avisées et il maîtrise koy wax sama baat ci parce que xam naa ci dara gis nga non nga xam ne moom daf ci dugal loxoom jël ay dat def ci waxtaan ak ay nit. président de la république. il a son cabinet. waaw il a ses collaborateurs. il a ses institutions. Mm-hmm. te ku mu neex bu ko neexoon tey ay sat mu oola suba léegi mm-hmm. boo fi jógee mu oola waxtaan ak yow ci sa métier. Mm-hmm. te nit ki loo ko xam ne yàlla may na ko. loo ko wax mu dugg ci bopp bi. te ju jël benn décision. évidemment nous sommes dans un régime présidentiel le président il est élu seul. face à son peuple. mais moom buy jël décision. da ciy waxtaan ak ay nit yu xam domaine bi muy jël décision am loolu moom mun naa ko seede parce que dina wax ak ay collaborateurs mais li muy wax ak ñeneen ñoo xam ne sax duñ seen ay ko moo ëpp ñi nga xam ne am nañ xam ci li mu bëgg a def te nit ki loo xam ne aussi du jóg ci di jàng di di di saytu di amul fu mu demul Sénégal xam na ñëpp lépp lu xam-xam na ko donc il faut que ñu dalal xel yi xam ne temps yi ñu toll décision bu mu jël lam ca xam ak lañ ko ca wax. on fasse confiance quoi. il faut qu'on lui fasse confiance. d'accord il prend de bonnes décisions. d'accord ah, ko waxee noonu. ko wax. Ah, loolu maa ko wax. yaa ko <laughs> la ko ñi ko xam yëpp. buñ déggee li ma wax dinañ xam ne li wax dëgg la. d'accord président du du jël ay décisions légères waaw. bu la wooyee ay décision yu am fayda lay ah, jël ca dafa am fu mu koy teg ah day waxtaan ak nit ñi ca kum neex mu oo ko waxtaan ak moom en dehors maintenant de ses collaborateurs et de ses institutions bu la wooyee lii nga woo ma waaw il y a pas de problème na léegi <laughs> ñu nga xam ne gis naa met bi nga xam ne euh, euh, sa kanam ma la xaw a xaw a ci sa war a wax waaw parce que wax wax ñu jotul la boobu ngeen di wax toujours troisième mandat ah, waaw président ñu koy soog a fal ce 3 xam nga constitution bi. li ñuy waxtaanee yow daf ko tënk. xam nga ba ñuy wax ab Ablaye Wade taxawoon naa fii ne leen. Ablaye Wade bii bu bëggee troisième mandat sur le plan juridique mun na ko mun na ko am. parce que constitution bi moo ko moo ko leeral. fii constitution bi boo ko liiree. lu leer la wax te dafa am. li ñuy wax conseil constitutionnel. bu ñu fa àggee bu fekkee ne am na litige. naa nu interpréter ndax war na def troisième wala. mooy kooku rek la yoon may mu taxaw. interprété wax ne président war na am troisième mandat wala am troisième mandat mais pour man wax ji ah. dafa jutul te constitution bi li wax c'est clair nul n'a le droit de faire plus de deux mandats consécutifs c'est tout loolu la constitution bi wax ah, léegi nag bu fekkee am na leneen luñ cam cagal ci constitution bi wala yooyu yooyu ah, bu boobaa conseil conseil dina taxaw wax ci possible ou pas sentir ah xam nga li wax rek. da nga sentir xam nga gis nga euh, Aïssatou. ñun dañu dund Senghor bi mu fi nekkee sax bon bon parti unique la ak yooyu quoi Ablaye Wade ñu fal ko fii. Euh, Macky Sall ñu fal ko fi. moi je fais confiance au peuple sénégalais aux électeurs sénégalais. Hmm. ñoo xam ne lañ nit ñu mat lañ. dëgg la bu fal jotee. dinañ fal ku mat yore réew mi muy yow muy man muy Mansour Faye muy keneen mm. suñu la falee rek xamal ne réew mi wóolu na la donc man sama problème du ay problème dafay fii kenn mënu fa imposer kenn mais mais mais la nga dégg affaire yu yi am na ñoo xam ñu ngi si siège éjectable président ma ngay togg remaniement ñoom Amadou Ba moom dañu leen di faxas euh, euh, sama mbokk waalo waalo bu mag bele Matar Cissé euh, kële sa xarit Mimi Touré ñooñu ñëpp ñi ngi piis Euh, siège u euh, président Macky beeg yooyu euh, yow APR après président Macky mais APR moomul réew mi. waaw mais munuñ ne bu fi Macky Sall jógee suba normalement waa APR ku nekk appareil moo fi war a topp. réew mi ci APR. te pour pourquoi pas front ah ah, su ma neexee ba nekk candidat. Ah, bu fekkee Macky jeexal na bu fekkalee. <laughs> <laughs> waaw lu daan rek ñuy tudd ay nit ah yemale yëf yi bëgg teel préciser yemale fii ci ak yooyu mais APR moom rek mu yorewu réew mi dëgg la réew mi yow ci nga bokk man ci laa bokk ñeneen ale Macky Sall ci lañ bokk ñeneen ci lañ bokk dëgg am na ñoo xam ne fële la joge ca lang ga ñëw ne man tamit maa ngi nii toog moo tax il faut faire confiance au peuple sénégalais gis nga bu Macky Sall jeexale woon tey hmm. dañuy delluwaat ci peuple bi. jox ko yëf nit ñi dem peuple bi ñooy choisir man nag je fais confiance au peuple. waaw mais mais choisir noonu la. <clears throat> Ah, nu muy demee parce que fi mu ne kenn xamagul ma doon candidat <laughs> yow ak yow ak Badou. mais gëmu ma nga nekk <laughs> oh? xam nga Aïssatou gëmu mm. man dama am métier bu mu fonk. muy avocat muy avocat. di ci jaamu yàlla. di ci dimbali nit ñi di ci dimbali suma askan di ci dimbali réew mi. di politique. politique bi may def am na ñu nekk ak man ñoom laa gën a bàyyi xel. ah ni sama bopp. man vraiment maa ngi maa ngi sant yàlla. Mm-hmm. maa ngi maa ngi liggéey. maa ngi daan sama doole maa ngi dugal sama loxo aussi ci lu jëmale réew mi kanam. mais man ci sama bopp ne man dama war a doon président wala doon yooyu. wax dëgg loolu daal du ma ci sonn. waaw aw ma ci ma ci obsession. <laughs> mais Ousmane ñëw def sa comme d'habitude. d'habitude xam man ki may nuyu rek mooy sama yaay bi nekk Kaolack day coro Diop. ndeysaan di ko yaay yàlla may ko tan boole ci nag sama rakk Awa Diagne. bi nekk Monaco toujours mu woo ma. Ah, ak sama jabar ja doomam daba oh taa yi rek doon def anniversaire am maa ngi koy gën a souhaité anniversaire am ñooñu sama doomi turandoo lañ nga xam ne moom ma yar di Ousmane Diagne ñi ma leen di ñëpp di nuyu nag sama ma préféré sama ah, jabar ah Marie ah, may nekk nam naa ko fii ak sa man nag gii bi moom a jaaxal bi ah rouge bi ñëpp ñoo koo xam la affaire bi la. ah mooy jox ko la ñuy wax coppati. kii xale xale du solo nii. déedéet lii du solo xale. kii solo mag la. ak dàll yi ak kii costume bi nu mu kiiwee nii. waaw yi yi fi jaar. yëfu mari la. waaw yëfu mari la. ak sama ak sama jabar bu ndaw bi quoi. waaw waaw Aysatu parce que Aysatu yéen a bokk tur. Aysatu sëy sama ma ah, petite fille. ah mais oui. c'est sa montre bi ngay wane nii lan la montre mu ngi tàkk noonu ci suuf. Eh, tàkk nekk jamaa de. ah waaw man dinaa tàkk jamaa de caaxaan ah, kon nag jamaa nga takk nii. <laughs> takk. <laughs> mais maa lay maa ngi tàggatoo di di di di gërëm sa téléspectateur yi di la gërëm encore une fois de plus di kontaan janook yow. parce que suñu dafay neex. Euh, di ñaanal nit ñi jàmm vraiment. mais nag temps yi da nga retranché fële de. Euh, beneen émission foofu la nga defee. Ah, ah, ah, waaw waaw c'est maa ngi jëm mag nag yow tamit il yoo xam ne nag. il faut que il faut euh, di jaale vraiment. temps yi ma toll dama dama perte nit boo xam ne il m'était cher. Hmm. mooy Ahmadou Bamba Ndiaye. ah oh sama xarit la sama xarit la dafa day jaar sama kër toujours. ñuy waxtaan xam naa nag yóbbaale na mbëbët. parce que nit ku baax la. Hmm. nit ku bëri xam-xam la nit ku laabira yàlla ko yàlla yërëm di jaale suma naataango avocat bu jigéen muy hmm. Charazat Ilal moom tamit yàlla daf ko moom dimanche euh, passé euh, euh, waajur sama yaay jële Euh, Aminata Mbengue Ndiaye man jaale ji naa ba Louga jaale naa yaay Aminata Mbengue Ndiaye parce que Aminata Aminata Mbengue dinaa la dina la dinaa la yóbbu ko am itte la bu baax la man ak ñoom ñoo bokk liggéey mais bi mu fi ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla ñëpp a kontaan ci moom ci yaato am ci vraiment ni mu tëddee jaaxaanaay di jaale waale aussi eh, ki nga xam ne mooy yaay mi Mimi Touré mm. parce que xam nga Mimi Touré moom vraiment sama jigéen la yàgg na moom yàgg na di wax ne man j'étais son avocat depuis 1995 xam nga boobu ak léegi na di jigéen ju baax nag bu am fula bu am fayda bu bu réewam bu am taxawaayu euh, ñeewul benn góor voilà ñooñu gis nga Sénégal am na vraiment nit ñu baax dëgg parce que fi mu nekk nii nit ñi dañ foog ne rek boo nekk au pouvoir euh, mm, yaay da ngay gundaan daat extra c'est pas vrai mm. pas vrai au contraire ñoo ñoo gën a sonn parce que ñoom la askan wi yaakaar ñooy liggéeyal askan wi mm-hmm. ca dañ ciy sonn ñooñu ñëpp maa ngi leen di maa ngi leen di gërëm mm-hmm. gërëm waa waa benn Bokk Yaakaar parce que nag euh, président dëgg la moom lañ fal mm-hmm. am na ay collaborateurs mais aussi dafa am fu muy appui wu muy waa Benno Bokk yoo xam ne aussi am na euh, les femmes Benno Bokk Yaakaar ñu ngi def seen ñu ngi bay seen waar les jeunes les cadres ah ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi bokk ci liggéey bi. Mm-hmm. di ñaan nag ñu gën a takku pour xeex pa euh, pour xeex euh, feebar bi di Covid 19. Mm-hmm. te président sax lancé na xeex bi ñu war a xeex après la Covid. 19 xam nga moom dafa am vision. Mm-hmm. di ñaan ñëpp ñoo xam ne ñu ngi koy jàppale ñu xalaat def réflexion bi ñu war pour xool feebar bi liñ ciy jàngale. pour ëllëg vraiment. ñu gën a def moom def na plan de résilience économique et sociale mhm. plan boobu ñu vulgariser ko seet nañ koy mettre en œuvre dimbale entreprise yi mhm. dimbale les artistes mhm. euh, dimbale ñi ñëw doole vraiment am gën a renforcer la solidarité ah, entre nous je crois que loolu moo gën daal wax yu sew yeeg ah euh, saagante yeeg ah, wax yu ñaaw yeeg ñu bàyyi ko parce que am na lu ñu def ci réew mi vraiment am na lu ñu def vraiment bu fekkee ne réew mi moo la ittee boo xëyee suba am nga loo war xalaat am na loo war def. ngir réew mi jëm kanam. d'accord waaw xeex mbas bi mu jóge fii. ba l'après Covid loolu daal. mooy le débat actuel. am na solo rafet na <laughs> rafet na. jërëjëf Aïssatou. <laughs> Maître la woon euh, euh, avocat. defe naa sa métier yëpp avocat bi la ci dàqal. moo ma ci dàqal. <laughs> yàlla sa jàmm yàgg na Ousmane la ñu kontaan lool wax naa ne ku ma man bu yóbbu ngeen mooy tam ku ma laal rek damaa yor <laughs> neexuma laal ah ku ma laal rek ñii taxaw <laughs> moo bi Abdou Diallo kat ñi taxaw ah, dafa ne ba mu neex ba nga gërëm di nga sant bu baax Maître Ousmane Seye di gërëm euh, naka noonu. ci euh, danañu xaw a xuloo xam naa duma ci sori torop euh, kama daan wax rek ma nga di daw da nga yàgg daw mi nga ne di daw <laughs> kama daan wax rek ne moo ma daan moo may moo may defaral euh, kii coiffure beeg maquillage bi ah, cat dugg nañu dañoo xuloo sa xarit nday mat leen danu waaw danu ah, dañu xuloo fi mu ne donc moo tax ah, tuuti laa koy waxal rek jaruma ci sori ma ko waxe tuuti rek ku bëgg yii ak yële Euh, boo ñëwee ba camp Leclerc daa am na benn salon de coiffure bu baax bu nekk ci ruq ba léegi waaye nag bu kenn yàq sa sa na ñeneen ñu ñu ñu ñu ko gën a yaru ñu ñu defar yu baax yi waaw tuuti laa koy wala xam yam foofu tuuti laa koy waxal Moussa bul bind daraay mado ci suuf nañu bàyyi noonu rek mu sedd euh, may gërëm bu baax nag euh, misaan ndooy ndooy maali maram sama compagnon de guerre bi nga xam ne yàgg na fekkee samay yëf waaw demal ne day ñibbi mat leen ne ñibbil ba xam oto ngay dugg euh, donc euh, euh, sama compagnon de guerre ngi nii Moussa Ndoye ma koy nuyu bu baax di sant Ndoye maa maram ah yàgg fekkee yàgg gis lépp nag mu boole ko pattaaral ci wet ga moonte dañu xuloo tey Cissé Ibrahima Cissé producteur réalisateur gis naa tey tey temps yi fi mu taxawee mun jëlaate Soumaré moo nekk ci son ya Moussa seen rek na le fidèle fidèle au poste ci montage bu baax bi nga xam ne moom dëgg-dëgg dafa may monté ba mu baax deful benn part parloo euh, defe naa euh, réglé naa samay quelques comptes donc euh, bu ko defee rek face to face incha allah nu dellu si waat dimanche prochain ak nag beneen invité sama masque bi nag misaan nga boo paree nga nga paas ma ko rek moom laa bëggoon terminé waal waaye bi nga day misaan yanu donc kon incha allah beneen dimanche beneen face to face jërëjëf.